yokk yeeg inflation yi faaw ñu waxtaanee ko mais également gisoon nañ coow yi amoon yu bëri fan yi ci wàllu hygiène ci wàllu cet gi la ñuy def ba mun leen mën a béggandi seen war liggéey ñu taxawoon quand même ne rek accepté nañu yenn ay conditions mais quand il faut mu ànd ak ay accompagnement accompagnement yooyu fan lañ ci toll lan la ñuy xaar également ci régime bu bees bi moo tax tey ñu daal di fi dalal ki nga xam ne moom moo di El Hadji Boubacar Ba ngir waxtaanee ko alors Assane ma bàyyi la alors euh, Aïcha ni nga ko waxee El Hadj Boubacar Ba moom la ñuy waxtaanal tey muy euh, njiital fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation mais d'abord avant ñoo wax ci euh, fédération boobu El Hadj Ba ñu xamee woon la vice président UNBS. oui kuréel gi kañ la taxaw ak lan moo tax kuréel judd ci biir kuréel gi. ok merci ci question boobu donc question bi nga xam te ne jàppoon nañ dina ñëw si émission bi. Mhm. voilà donc xam UNBS xam El Hadj parce que El Hadj moo moo créé UNBS. <laughs> donc avant UNBS euh, amoon na association bu fi nekkoon. tudd ABDM pour la modernisation depuis 2016 la ñu nekkoon di si liggéey euh, suñu papa ki nga xamante ne moo nekkoon Dalifort mu doon Baba Aliou Sow donc dëkk fële si Podor donc euh, maa ngi koy néew passage doon kilifa ku taxaw. yee ñu ci affaire yi dimbali ñu ci lu bari éveillé ñu ci lu bari dem ba ñu gis ko na mu doon kilifa dem ba benn moment mu taxaw donc si laa ñëw na 2016 2017. ma accompagné ko ñu liggéey liggéey ci ba 2018 2019. ma amoon ay jafe-jafe si yenn agent yi nga xamante ne amoon na ñu bëri gisoon nañ image yooyu si wàllum patente donc nu ñuy def boutique nu ñuy maltraité donc fekkee jamono jooju amatul benn association bu fi nekk donc si laa ñëw gën a dëggalaat sama bopp boole nit ñi dem si marché dem si boutique yi dajale boutique yi yëpp mhm. euh, informer leen réalité marché bi ali nga xamante ne état de koy santaane bon après bu ñu paree loolu si la ñi nga xamante ne quelque personne jotoon nañ ma woo ñu ànd si liggéey donc ñu xalaat mënoon nañ demee si association boobu mooy ABDM bi nga xamante ni bokkoon naa ñu ko créer euh, jiita jël pa bi xamante ni moom ma jiitoon si mbir bi def ko président donc en même temps aussi si la UNBS juddu donc mhm. après UNBS bu juddoo deux ans ñu dem aussi ñu toog ñoom ñëpp ñu fal ma ñu ne naa nekk seen président man leen gannaaw man na xam nga ni mooy yëngatoo si mbir bi maa ngi tamit si société civile bi maa ngi fu ne temps amut donc préféré naa benn nit ki nga xamante ne jàpp naa moom moo bëgg na liggéey man naa ko jox Mhm. mooy président bi ma jox ko lengey donc aussi ñu daw daw ba si biir euh, am ay quelques détails yooyu amaana na beneen jour bu fekkee bu ngeen si xam lu leer aussi dinañ si indi lu leer dem ba si biir aussi euh, boo xaw a ñagas aussi boo nekkee si benn kuréel aussi dem ba si biir li nga bëggoon nga xam mooy lii sa objectif. Mhm. gisatoo ko si biir là aussi il faut tamit nga jéem a xoolaat fi nga jóge boo xamul fi nga jëm delloo fi nga jógee donc amoon li nga xam te ne créé nañ ko bokk naa si ñu njëkk a association bu nekk nouveau national ba ñëpp xam ko. kon bu ñu demee ba si biir li nga xam te ne moo ñu boole woon gisatoo si sa avantage boutique yi là donc il faut ñu jëm xoolaat mbir yi donc si la def membre yu bëri ñu woote ñu ne vraiment ñun lii nii du lii moo nekkoon suñuy objectif donc suñu rôle daa ni ñu ngi koy wàcc donc aussi nañu xoolaat leneen donc si la ñuy waxtaan ñi nga xam te ne association jotoon nañ ci fédéré ñu jot. pourtant UNBS porté na combat yu bëri ci boutique yi. oui euh, effectivement combat yu bari boo xoolee jot nañ si porté mais du UNBS rek parce que avant UNBS dafa amoon association association yooyu ñoo daje. Mhm. donc yi nga xam te tey dajewoon nañ si biir boobu euh, maintenant jëm nañu xool lu ñu boole woon daanaka gisatuñu si si si suñ suñuy bopp gisuñu mhm. avantage suñuy membre donc yooyu ay détails yi nga xamante ne am na lu bëri lu ne si biir. Mhm. donc xam naa loolu boole leen si bëggee xam rek après mën nañ si yaatal donc si lañu fédération bi door a alors euh, fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation. Euh, lu ko tax a jóg. lu ko tax jógu bëri da am na ay tomb yu bari c'est par rapport lu njëkk d'abord mooy lu bëri gis nañ ko fu mu toll nii ñu bari dañuy jóg rek ngaññi commerçant yi mooy rawatina surtout boutiquier yi. Mhm. parce que aussi ñun bu ñu demee ba doon yeneen commerçant boutique la ñu xam si boutique la ñu mhm. xamee kon tur boobu duñ ko wàcc. voilà te aussi loolu nag si si mhm. lu ko tax jóg c'est dajale déjà dajale lañu boutiquier ba pare c'est xamal boutiquier yi seen devoir. Mm-hmm. aussi xamal leen aussi ñoom tamit seen droit am nañ droit si dëkk bi taxaw tamit temb mm-hmm. naan boutique yi kenn waru leen wax loo xamante ne du dëgg du yoon mm-hmm. loolu bokk na lu tax fédération bi juddu te aussi moderniser secteur bi parce que commencé woon nañ ko mais am na ay manquement yooyu ne aussi il faut ñam ñoo xam te ni mën nañ ci dimbale ñu gën a ñaaxaat boutique yoon sam ñoo xam adduna bi dëkk bi nu muy doxee changé na les années 80 mhm. par rapport léegi lu fi nekkoon de mu nekkatu fii donc il faut ñun tamit ñi nga xamante ne adduna buy dox da ngay dox àndal moom kon loolu yëpp bokk na tax euh, Euh, FNBM juddu. Mhm. ay yeneen la yeneen. Mhm. protéger ñi nga xam ne boutique yi parce que yaa ngi naan kenn du leen wax wala kenn du leen def def yoo xamante ni euh, naka su dul noonu. deuxièmement yaa ngi ñuy wax modernisation aujourd'hui bu ñu naan modernisation ci côté boutique yi ci ban aspect ngeen ko bëgg a def. waaw modernisation bi mun nañ si wax euh, doon aspect yi bari bu njëkk. bëgg nañ di xam te ne mooy ministère du commerce bu nar a ñëw donte fi nekk def nañ liggéey bu am solo mm-hmm. mooy monsieur ministre euh, Abdou Karim Fofana mm-hmm. maa ngi ko nuyu passa doon ko jàmbaar ki nga xam te ne dafiy ñëw tey ji gis nañ magasin yi déjà euh, nuñ koy defaree des na léegi nag dañuy bëgg euh, ministre bii di ñëw ñu boole ko ci programme yooyu bépp borom kër buy tabax xamante ne da ngay def magasin pour boutique am ay normes yi nga a respecter avant boutique di jël magasin parce que tey boo bëggee moderniser benn boutique bu ndaw li nga bëgg a def ci boutique boobu ay rayons yi nga xamante ne da koy laaj koy tabax boo xamee magasin bi da nga koy defar par boutique fekk da ngay dem chambre de commerce am kat yow tabax nga sa kër mais am naa ñaari temps aussi parce que ñu bëri dañu naan boutique yéen ay dañuy fanaan si boutique ñii dañu fanaan si boutique mm-hmm. ñu boole si loi bi nga xam te ne képp kuy loué boutique di nga si wet ga benn nekk nga xam te ne kuy jël magasin bi da koy faciliter euh, mun a am fu muy nekk mm-hmm. loolu aussi kaaraange boutique bi parce que ñu bëri dañuy loué ah mais bu ñu demee di fanaan seen nekk dañuy dajji magasin yi wala dañuy dajji seen boutique jël lu fa nekk dem nga xam te boo defee plainte contre x aussi du mujj fenn mhm. loolu si gis nañ loi laay wax parce que dafa mel ni euh, implantation boutique amul loi daanaka da ngay xëy rek gis benn magasin looy tijji non am na loi mais loi boobu si boutiquier bi la mhm. yow si boutiquier bi lañ ko sotti te mhm. alors que euh, loolu aussi lu baax la mais mënoon na gën baaxaat commencé ko si tabax bi parce que boutique boo koy tabax dafa war a aéré te loolu yëpp fekkee ku ko doon tabax maçon yi wala borom kër gi jëlaloon mesure yooyu yow bu ñu nee boutique bi dafa war a aéré boo ñëwee fekk benn benn benn garage lañ la jox loolu mënoo ko def mhm. yow da ngay dem chambre de commerce nga ne bëgg nga ubbi boutique nangam nangam laaj lan nga fay def ñu jox la kayit yi far nga remplir ko euh, nga dem sa boutique fekkee ñun commerçant yi loolu la mais dañu bëgg balaa borom kër gi di tabax këram moom am ay normes nga xam te ne Euh, mètre carré lii la war a laaj. aussi mu amaale ay toilettes mu amaale lépp loolu daal mooy suñu bëgg-bëgg. Mhm. si wàllu boobu. bu ñu nee boutique Sénégal li ñuy njëkk xalaat moom mooy njëkk maanaam jënd ak jaay euh, saa su ne. coow liy dox si diggante boutique yi ak clients yi day nekk si prix bi prix yi ñu homologué surtout des fois euh, buñ ne yokk am na di ngeen toog une semaine ou deux semaines parce que da ngeen naan am ngeen stock bu fekkee euh, euh, euh, disons dañuy dañu war a wàññi da ngeen naan am na stock bu mu war a jaay mais bu ñu leen yokk même pas une semaine ngeen appliqué appliqué loolu mooy reproche bi ñu leen di def souvent est-ce que loolu it doon loo xamante ne war ngeen see jóg waaw loolu jóg nañ si sax bu yàgg day boo xoolee concertation yaa passé fexe woon naa bi ñu dem présidence palais fu ñu ko commencé wu ñu dem ay radition si jëf mais la problème a nekk proposition yi ñu jotoon jox mm-hmm. état bi tenir ko en compte parce que tey jii boo ma nee jaayal cent franc. Mhm. si biir cent franc yooyu maa ngi jëndee quatre quinze fekk nga digal ma cent franc ma war si am cinq franc te génnewoo samay frais d'emballage là y a problème. kon mais bi ngeen waxtaan ak ministère bi li ngeen doon wax moom mooy frais yi nga xam daanaka ñi disons euh, de transport yi frais yi ñuy yannu ñi nga xamante ni bu dee par exemple saaku ceeb bi dañ koy yannu yéen a ngi waxoon je pense deux cent franc lañ ko fay. Mhm. Euh, si yooyu ngeen jubóo woon. Mhm. ginnaaw loolu la lii ñëw n'est-ce pas. Euh, du loolu kese loolu si la bokkoon même loolu sax aussi ñoom defuñu ko ah parce que dañu ne woon frais yëpp la ñu xayma dañu ne woon mbuus yi 750 la. ñu mhm. ne mooy frais yi ñi di yéenu di wàccee 250 mu doon 1000 francs mhm. ñu nañu fekkee 750 la ñu diggoon si ceeb bi euh, sukkar bi 1150 nañ ñu booleel beneen 1000 francs boo xamante ne warul ajouté boo xamante ne dañu koy boole boo xamante ne suñuy marge day bokk suñuy marge. Mhm. parce que ceeb bi 15 francs la si bàyyi léegi mm-hmm. jël lekket daa mel ni ñuy dem léegi mbuus rek la ñuy def comme mbuus <laughs> mu takk sa kaw. Mm-hmm. te mbuus yi doo ko jëndee te grand surface dañuy jaay mbuus mais boutique balier boo ko naree imposer client da am problème dañuy naan kii dafa bon dañuy naan non mbuus bi da nga ko war a jox. Mm-hmm. te fekk mbuus bi waroo koo joxe da ko war a jaay. Eh, euh, euh, mais mais sànq yaa ngi wax naan mais bu fekkente ne euh, amoo bërëb maanaam sa bërëb liggéeykaay amoo fa place boo xam ne foofu ngay tëdd wala nga mën a surveiller say say bagage ba fajar mën nañ koo ubbi ba nga jox ci exemple. effectivement mais ba pare ci seen point yi de revendication yi nga xam ne yoon yónni nga mooy formalisation du secteur bi. Mm-hmm. yaa ngi naan que da ngay solliciter auprès de letat pour que ñu mën a régler ay assurance en cas d'accident. kon bu ma la déggee bu baax bu ci kii ak li ñu fi bëree yëpp yëpp amuñu benn assurance boo xam ne moo leen di téye après accident wala après cambriolage. non amula ah, sincèrement xëy na na am koo xamante ne. amaana kon ku ci cambriolé wala ku ci làq da ngay perte comme ça. da ngay perte noonu. mais accident euh, assurance c'est une affaire privée. waa loolu la mais bu la ne mais en même temps du tore du tere aussi mun na am yoo xamante ne mun nañ ñëw gën a faciliter ñu mbiri si loolu yëpp lañ si boole programme yooyu tënk ko li nga xamante ne dañ jot déjà jot nañ ko expliquer à nos membres. expliquer leen carrément aussi euh, mbir yi il faut nga am assurance assurance da la si mën a génne mhm. loolu jot nañ si waxtaan mais aussi li nga xamante ne ku yàgg na jaay pendant quarante wala trente ans doo ñëw benn jour rek nga ko lii da koy def mu def ko mhm. donc si la xaar en même temps prix yi nga xamante ne nor bala ma xaar bi ñu ñëwaat si côté boobu mhm. cadre bi nga xamante ne tey ji euh, assurance bi loolu sax dafa sori danga xool commune bi nga xamante ne tey foofu nga nekk amoo fa benn sécurité te pourtant maire bi nga xamante ne mu ngi sa gox moom ngay fay yenn taxes yenn affaires yu bëri am na si 40 pour cent wala alu teg kon kooku aussi war na am benn taxawaay bu muy taxaw si commune boobu nga xam te ñoo koy jël di ko yóbbu te ngay xool benn bëri benn nit moo fa nekk mais loolu commune bi ne poubelle yi nga xamante ne oto mbal ñu sotti lu si ay bi a yeneen kon boobaa mooy état dafa seetaan secteur commerce détaillant te aussi ñu ngi contribuer si dëkk bi ñu ngi contribuer si développement dëkk bi ñu ngi jëflante ñëpp ñëpp ñu ngi jëflante ñun kon aussi il faut ñu bàyyi si xel bu baax baax si si si suñuy taxawaay si dëkk bi. Euh, mm-hmm. Mm-hmm. parce que bu fekkente ne pharmacie balaa nga ko installé dafa am ay normes. Mm-hmm. parce que euh, pharmacie pharmacie ak boromam dafa am ay distance yoo xam ne dafa war a séparer. mais dañuy gis yéen côté boobu moom vraiment da ko fayir. da ngay jékki-jékki gis benn boutique beneen morom boutique ubbi boutique yaakaarloo ko moom. côté installation boobu la est-ce que yéen a ngi ciy dox ay jéego su ko defee au moins mu am ay normes yoo xam daa nga koy mën a respecté quoi effectivement yooyu bokk na si nga xamante ne naa ko ni mais beneen beneen dossier foofu koy ubbi di ko di wàcc yooyu yëpp bokk na si si yi nga xamante ne si programme yi nga xamante ne boole nañ ko tënk fii loolu am na ay normes yi nga xamante ne booy def boutique war nga ko mën a respecté mais norme yooyu mooy lu ma la commencé tey ji bépp jaaykat wala bépp commerçant yaa xam détaillant wala demi gros grossiste balaa ngay tijji sa boutique d'abord da ngay dem chambre de commerce boo fa demee dañ lay laaj lan ngay def sa boutique fan la nekk nga indi yenn documents yi lañ laaj lu mel ni euh, résidence bu fa paree aussi boo amul registre commerce ñu defaral la ko boo amul NINEA nga def ko nga door a génne bu fa paree ñu laaj la ndax boutique bi da nga ko utal trou muy maanaam da koy def ma euh, euh, marque wala entreprise ça dépend yow. bala neexee nga def ko ñu jox la document yi nga remplir ko nga dem ñu xam bërëb fii la nekk boobaa même fay impôt bu jotee euh, day gën a yomb si yow loolu aussi avantage jaaykat yi la mais loolu aussi ñu bëri dañ koy def mais boo fa demee aussi euh, parfois da ngay tardé tardé boo xamante ne tamit li nga bëgg doo ko mun a am kon loolu aussi boo si buggee buggee fii benn document bu ndaw benn papier goutte papier bu tuuti balaa nga koy jot da nga siy sonn loolu rassurez vous que boutique yi ñu ngi koy def mais broker yi ñooy tabax nu leen neexee problème bi foofu la léegi bu demee ba nga xam te ne suñu loi bi ñu ngi koy non fi may waxee mooy xam nga affaire kër nga may posé mhm. man c'est-à-dire que boutique bi laa la wax mhm. des yow tey ji nga ñëw fekk borom boutique mu ubbi di nga jékki-jékki ubbi boutique ci wetu wa waaw est-ce que norme boobu la yéen a ngi jéem a xalaat naka ngeen koy naka ngeen koy régler ça veut dire loolu ñu ngi si mais xam nga loolu aussi kuréel mun nañ si dox mais loolu état la ñuy jëbbal wax parce que tey jii mënu woo ñëw si ko si si si benn gox nga ne danga nga bëgg a tijji boutique ma ne non doo ko fi defee ko loolu du man du keneen moo ko mën ku dul état mais ñun lu ñu wax lu ñu war a mën def dañuy bind di jëbal autorités yi nga xam te ne ñun ñoo fi nekk expliquer leen ko lu mel ni ministère du commerce wala ñeneen bu ñu leen ko waxee boobaa ñun ñoo si war a veiller mais ñun en tant que euh, mun nañ ko xeex expliquer kese lañ si mën dénoncer mais ñun mënuñu empêcher benn nit doo fi ubbi boutique loolu aussi <laughs> parce que nit ki moo yor xaalisam dem loué euh, benn bërëb boobu mënuñu ko si tere donte na arrangé wul jaaykat ñëpp parce que ku ne ni nga si noroon am doo ko si am mhm. mais nit ku ñuul daal moo demee noonu da nga gis kii def li yow sax boo ñëwoon nga def nga def quincaillerie wala nga def fast food wala restaurant wala leneen c'est mieux bon loolu la amoon lu ma doon tontu. bu bu ñu ñëwaatee un si si si prix yi sànq ñu ngi siy waxtaan euh, dafa am ay ay euh, denrées yoo xamante ne daanaka euh, marge bi bëriwul. wala te parce que mooy denrées yi ñuy gën a gën a jëfandikoo ceeb diwlin sucre lait entre autres au moins mën nañ cinq yoo xamante ne daanaka marge bi bëriwul mais bu ñu nee boutique da nga fay fekk cinquante une cinquantaine de produits est-ce que waroo leen jéem a dàkk seen bénéfice si yeneen produits yi bañ na jéem a xeex si si si ceeb beeg diwlin parce que loolooy askan wi. waaw loolu du lor askan bi parce que boo xoolee ñun lépp luy lor askan bokkul si ñun. Mhm. ñun lépp li nga xam te ni day day day day dimbale askan bi. Mhm. si si loolu lañu nekk di dox te loolu si la ñu yàgg di dox. Mhm. tey ji dafa am cinq pour yoo xam te ne dañ koy homologué dañ koy fixé. état moo koy subventionné mais il faut tamit ngeen xam subvention boobu noonu bu muy jël xaalis di ko jox joxuñu ko ñun détaillant bi. soit importeur bi la koy jox ñoom la koy jox d'ailleurs wala ñi nga xam te ne mooy industriel yi kii di defar. ñoom la ko jox bu ko joxee pare léegi day naan lii boo ko noree jaay di lu gën naa si lii da ko war a wàññi léegi kooku na da koy wàññi le problème nekk après ba demi gros ba ba si détaillant bi kooku lu tax ñu sooraale ko ay fere am ay yi nga xamante ne da siy dugal loolu moo tax moom bu accès bu ko jëndee marché noir la koy jëndee comme sukkar bu mu toll ni dañu ko digal nañ ko jëndee cent 350 te si marché bi mu ngi si 32 000 am na ñu xam xamante ne trente mille sept cent cinquante moo si gën a yomb te boobaa dañ la dig dañ la santaan na nga jaay kilo bi six cent cinquante mhm. boo ko jaayee six cent cinquante vingt deux francs nga fa am marge vingt deux francs nga fa noroon am marge te alors que yow yaa ngi koy jëndee fu mu nii six cent quarante six cent quarante yéen a jaay woon ko six cent cinquante yéen a ko jaay sept cent effectivement am na ñuy jaay 700 mais liñ ñu santaan laa leen di wax. li nga xamante ne mooy moo nekk moom 700 ngeen di jaay lu nekk si kayit yi laa la wax li nga xamante ne état loolu la ñu recommandé. c' est 650 mooy prix bu valable. bu fekkee jëndee naa ko 30 350 mais bu ma jëndee 32 000 dèjà man def naa infraction waruma jëndee loolu d'un de deux bu ma jaay 700 infraction la booba. contrôle économique bu ñu ma jàppee dañ may verbaliser. ma fay amaan mooy man mooy keneen mooy yow mooy keneen. loolu côté boobu jafe-jafe boobu lañ si am maanaam marge bu ñu am dañ ko war a gëstu yeneen produit nga wax euh, mën nga toog 2 jours 3 jours ko mhm. tey ji yow boutique boo fa demee soit war ngaa sukkar nga fay jënd wala ceeb wala diwlin sa matin ngoon war ngaa sukkar guddi boisson. Mhm. pare nga si. Mhm. Euh, yaa ngi wax sànq prix yi euh, Serina da leen wax 700 mais autre chose dañ koy nemeeku dangay gis ñetti zone ñetti boutique ñetti prix yu bokkul. c'est waaw loolu lu am la lu fi yàgg la te aussi il faut rassurer vous que prix mënut a tolloo ban prix moo mun a tolloo din am na prix yoo xamante ne war na mun a tolloo mooy lu ñu doon wax léegi prix yi nga xamante ne dañ ko homologué prix yi nga xamante ne dañ ko fixé par l'état les cinq produits wala sept wala six ça dépend jamono ji boobu boo fi nekkee si biir région de Dakar wala feneen région bu ñu nee prix bi lii nga ko war a jaay mooy produit homologué bépp jaaykat da ko war a respecté mm-hmm. boo ko respecté wul da nga salfaane euh, yoon da nga jalgati yoon mm-hmm. bu ñu la si jàppee dañ lay teg daan mais yeneen produit yi comme tey ji sama téléphone mun naa dem si marché marché bi même techno wala même prix nga yor ma jëndee ko cent quelques mille yow nga ji jëndee ba téléphone cent dix mille mm-hmm. loolu dafa nekk li nga xam te ne kenn fixé wu ko loolu nin ko amee nga ko mun a jaay donte na da nga war a sóoraale consommateurs yi waroo jaay li nga xam te ne si am double wala triple loolu aussi dañ koy aye donte fekkee fixé wuñu ko loolu aussi état bu ko yogee mun nañ ñëw contrôle naan plafonné prix maanaam lii warul weesu li mhm. donte du fixé wuñu la lii nga ko war a jaay mhm. loolu côté boobu mënul tolloo li nga demee jënd kee dem jëndeew soit mën nga am tey ji ceeb kee dem jënd suba mu yokk yow nga jaay moins cher parce que yow dese nga mhm. mais boo demee jënd kee lu mu jënd aussi boobaa day yokk nga ne kii pourtant démb lii laa jaay lii laa jëndee woon sukkar wala ceeb gannaaw kii ñëw tey lii lay jar. Mhm. kon yaa problème yi nga xam te dafa nekk lu si biir mais le problème est que li ñu gën a jaaxal mooy ministère yi nga xam te ne nor nañ ñëw fan yi dañ leen si xaar si li nga am te ne mooy prix bi nga xam te ne bii pas dañu jël arrêté naan fixé nañ lii ñu mën a fexe li nga xam te ne du doon rek communiqué du doon sur le papier. Mhm. aussi ñu bañ a fixé li nga xam te ne day gaañ détaillant bi wala grossiste bi wala demi gros bi. nañu fexe dajale ñëpp comme la fois passée ñu ko defee te aussi bu ñu demee ba yëkkati suñuy parole suñuy kàddu jox leen ko ñu gëstu ko ñu door a xoolaat seen arrêté yi. mais en général aussi ñoom dañuy fixé ah. Hmm? mais yéen a nangoo exécuté. comme Assane wax na la ko sànq yéen bu fekkente ne yokk la da ngeen gaaw a yokk.

ñu ngi ko doon nar a jënd vingt et un mille deux cent ñu dem bi ñu ko jëndee dix sept mille dix huit mille ñu wàññi ko def ko mille franc bu dem pourtant mënoon nañu koo jaay mille cent franc ba léegi léegi ni am na ñuy jaay diwlin bi mille franc mais yokku war na si diggante bi kon marché mooy imposer prix parfois. <laughs> marché bi butéelu 5 litres bi nga tu dama euh, jox exemple butéelu 5 litres bi une semaine ci ginnaaw maa ngi ko jëndee woon 6500. mais démb ba ma koy jënd maa ngi ko jënd à 7000 francs mhm. waaw mais loolu sax euh, donte yokk moom arrangé wul kenn mooy man jaaykat mooy jëndkat mais 5 litres bokkul diwlin bu ñuy naan mooy diwlin bu gën a yomb euh, boobu la ñu homologué à 1100 francs mais marché bi dafa dem ba wàññeeku ñu wàññi ko te pourtant état xam na lii ñun ñu ngi koy jaay 1000 francs te pourtant loolu infraction la mais dañuy dimbale askan wi dañuy dimbale euh, consommateurs yi ñu jaay ko la mënoon nañ toog di jaay 1100 francs ñu naan arrêté bi lii la wax kayit bi mu ngi ne ah boo jënd nga jënd boo jënd nga bàyyi mais meluñu noonu parce que concurrence dafa bëri comme ni nga ne ñaari boutique ñetti boutique lu ñu jàpp da ngay ragal perdre say clients kon parfois boutiquier bi mbaa grossiste mbaa demi gros bi ñu ngi daj ñu ngi am difficulté yi métti yi nga xam te ne tey jii euh, état bi bu jël si ay solution hmm. euh, secteur bi mu ngi naxasaay te loolu na vraiment war nañ si mën a teel a jël ay mesures balaa ñu jëmee foofu parce que aussi tey ñu bu mhm. dikkee lu ñuy dimbale néew ñu doole yi euh, ñi nga xamante ne cinq mun lay yóbbu weer dafa bëri ñooñu yëpp si boutique bi la ñu yor te nga boutique mhm. cinq cent mille la yor day dem ba xamante deux cent mille moo fay des yeneen mhm. trois cent mille yëpp da koy joxe alors justement justement nga ko léegi léegi sax apparemment yéen a ngi xaar ay attente te comme euh, ci régime bu bees la bëgg dugg am na sax ñu naan carrément Euh, système bi lañ fi jëlee euh, indiwaat beneen muy anti système euh, tey lan la boutique yi di xaar face à ce nouveau régime là. waaw bu njëkk dañu leen di xaar li nga xamante ne souvent membres yi loolu lañu ñu gën a réclamer bëgguñu gis ñoom ñu jël décision fekk ñun duñ ko xam dañuy xëy rek naan tey jaayal li fekk yow jëndee ko loolu loolu vraiment ñu ngi siy xaar. bépp ministère bu fi nar a bi nga xam te ne mu ngi si wàllum commerce wala chef service yi directeurs yi ñi xam te ñu ngi si commerce ñu bàyyi si xel ba xam te ne du doon rek gëm la askan wi. Mm-hmm. wàññi nañ te alors que xam nañ réalité wàññiwuñu. loolu yàgg na fi ama mooy benn deuxième bi aussi ñu dimbale ñu li nga xam te ne ñu ngi jëm si wàllum modernisation bi ñu accompagner ñu si programme boobu lu mel ni ay rayon. mel ni ay caméra surveillance donte même bu fekkee état defu ko mais mun nañ am yeneen bailleurs yi nga xam te ne état mun nañ ñu si ñooñu orienté ñu si genre loolu aussi loolu ñu ngi si bokk na si attente yi ngi leen di war a xaare bokk na si tamit li nga xam c'est privé quand même yéen a ko mën defal seen bopp quand même. <laughs> non boutique yi amul xaalis yow yow boo ah noree yow <laughs> boutique boutique yi amul xaalis. yow gis alal quand même. xanaa léegi non def sécurité alal mais état état moo fi nekk état ñu fi la fi nekkal taxi yi ñuy récupérer ci ñoom rek mais mën nañ sécuriser seen boutique quand même. ah mais quartier bi wu maire bi maire bi moo liggéey sénégalais yi. man je me dis que le maire égal bu fi yeewoo. loolu loolu man j'ai bien aimé votre dernier point là bi ngeen bind ci seen formalisation du secteur fi nga naan euh, solliciter auprès de chaque maire de euh, veiller à la sécurité des boutiquiers et magasins mmh. de chaque quartier mais Assane loolu je pense que c'est le minimum quand même ah, pour pour un maire de veiller à, à la sécurité du, du quartier bien vrai que tey ku fa teg sa table même bu dee cent francs dinañ ko muccaat ci yow. peut-être peut-être disons maire peut-être. Ah. <laughs> Euh, am nay compétence compétence transféré mais maire am na loo xamante ne attanu ko. ça c'est sécurité askan wi moom disons. état état ko moom am na loo xamante ni c'est vrai. Mm-hmm. Euh, euh, municipalité yi mën mën nañ ko def mën nañ see mm-hmm. jàpp. Mm-hmm. par rapport ak yenn taxes yi nga xamante ne ñu ngi koy am mais am na sécurité fu mu toll état moo ko moom état moo ko mën. donc ministre teg leen yenn yi di dina jafe au delà de ça am na foo xamante on peut être d' accord avec euh, euh, Seydina mhm. euh, boutique business la entreprise personnelle la il a des financements des investissements yoo xamante c'est personnel da nga ko fay def mhm. Mhm. quand tu veux la sécurité tu le d'abord avant d'attendre la sécurité si si côté état certes je peux euh, euh, euh, l'entendre fi mu naan mën nañ ñu say jàppale sa à dire mën nga am sa projet. ñu jàppale la boole la ak ay bailleurs quelque chose comme ça. Mhm. là bu dee bu dee esprit boobu lañ nekk. si cadre boobu la on peut être d'accord mais quant à l'état ñu installé leen. tous ces trucs là ça c'est autre chose. c'est dugg si boutique nga gis ay grillage nga gis ay armes nga xam te def na ko c'est pas c'est parce que kooku prévoir na. li nga xam te mhm. mooy sécurité boppam ne. Euh, ñu doon sénégalais wala nga xamante ne ñu ay sénégalais parce que kuréel bi dafa jaboote ñëpp ñu mun na leen faciliter ci registre de commerce tey jii boo doonee étranger pour nga am fi registre commerce dafa doon lu métti dafa doon jafe-jafe yi nga xamante ne jaabante yi doo comprendre. Mm. maa ngi si nuy sa euh, président Mamar Ndaw parce que yàgg naa si def ay démarches man na moom fas jotoon nañu liggéey liggéey bi nga xamante ne képp ku am yenn documents yi dinañ la si jàppale. mais ñi nga xam te ne dañ fi ñëw ñu mun leen di même bu fekkee registre commerce bu vert dañ leen koy defaral euh, parce que registre de commerce yi juste que ñu xam carrément yow bindu nga euh, si si si si si mhm. commerce bi yow bu euh, mu toll ni valable nga nga doon boutiquier wala nga doon li nga mun ti jaay ñu facilité xam te la laaj parce que boo doonee la laaj passeport te fii dëkk yu bëri bu ñuy vaay carte d'identité la ñu yor carte d'identité la ñu mhm. ñëwee CEDEAO fii te léegi bu ñu la imposé passeport di nga fi gis nit toog fii 5 delluwul dëkkam wala trois ans balaa muy dem foofu jël benn passeport xamoo ndax dina ko jot ñaata temps la koy jot pour mu ñëwaat mun am aussi beneen bi lu gën tamit ñu ne la euh, boo passé si passeport bi da ngay am quinze euh, jours moyen de trois mois bu jógee sa dëkk. Mhm. loolu aussi bëgg nañ si état bu fi noor a ñëwaat mu dimbali loolu facilité membre yi nga xam te ne mun nañ la laaj sa résidence sans dépend waxtaan la mun parce que man mun ma wax état lii la war a def. Mhm. mais aussi pare nañ pour am loolu mais ñu ngi siy daj coono bu métti. Mhm. mais ñi nga xamante ne ay sénégalais lañu pour nga am ko lu yomb la sa photocopie carte nga yóbbu résidence casier judiciaire euh, pare nga fekk aussi sa carte kii jeex na nga dem déposer deux ko. Mhm. mais parce que ñoo fi nekk di liggéey kon war nañ mun a boole ñëpp si intervention ndax temps bi jeex na. Ah, <laughs> moo nekkoon hygiène bi quoi doo leen bàyyi

mais dafa bëgg ndékki mais troisième étage wala deuxième étage mënul va et vient benn benn course lay def. Hmm. wàcc bëgg a jënd café ak meew beurre chocolat tegaat ci encore benn benn pain au lait loolu ndékkeem la. ne jaay ma saabu weexal bulo eau javel nga jël lépp buubaa ci mbuus bi koy def donc li nga wax noonu man musuma ko gis te yaakaar na amul benn boutique bu koy def yoo xamante <laughs> koy def mais c'est la réalité n'est-ce pas monsieur Faye je comprends xalaat la mun nga ko xalaatee noonu xalaat dañ ko dund dañ ko dund ah, de mais tey ji mun nga mun naa man ñëw sa boutique ma ne jaay ma mburu nga yëkkati mburu bi jox ma ne jaay ma saabu ma jël saabu jox la loolu xel xalaat na ko mais ça ni ko te mburu bi sax euh, dañ ko tere sax fu mu toll nii si boutique si yenn conditions yi boo koy jaay dafa am ay normes nga xam te war nga ko mën a respecter kon je yooyu waruñu toog di dégg aussi lu ñuy wax ci réseaux sociaux yi ñu bëgg aussi boole suñu yenn programme loolu aussi day poser programme léegi hygiène bi nga doon wax modernisation <laughs> modernisation bu ñu tudd ni euh, ñu ngi ci avancé bu njëkk da nga xool comptoir ciment la amoon ci boutique yi mais léegi foo dem comme genre plateau yi nga xam te ni hygiène na rafet na boutique yi bëri léegi armion la def ci boutique yi kon loolu aussi mooy hygiène bi nga xam te ni ñu ngi koy dugal mais problème bi yëpp mooy boutique bi nu mu war a bindoo ci dossier yooyu la ñu nekk fu mu la ñu nekk bu ñu fa avancé incha allah d'ici 2030 fas yéene nañ moderniser boutique yi yëpp si nekk si biir Sénégal ku si pare si boutique yi parce que aussi nit ki doo ko forcer da ñëw wax ko lii lii bu bëggee mu ànd si aussi bëgg nañ leen former tamit yooyu yëpp mu ngi si biir am na ñi nga xamante ne ñu euh, bu njëkk melatuñ di ñaan aussi ñi nga xamante ne dañuy diaboliser yenn commerçant yi ñu bàyyi si loolu ñu xam aussi dëkk bi ñu ne ñoo ko bokk fu waxtaan rek moo fi am solo mm-hmm. waxtaan juumte day am wala nit ki bañ a xam mais boo boo koy waxal sawaay defal lii defal lii moo gën te aussi nit ki tas am na xel da koy def. je pense loolu laa amoon lu ma doon tontu si côté. hygiène boobu d' accord Boubacar Ba ñu koy jaajëfal Assane. may fàttali ne fa fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation moom nga amoon tey ci panier de la di ko jaajëfal bu baax El Hadj Boubacar Ba njiital fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation ni mu ko waxee un projet euh, bu war euh, atteindre son apogée en deux mille trente. bu fekkee tout s'est euh, bien passé di ko jaajëfal ci teewlu bi ci teewaay bi ak si waxtaan wi. jërëjëf Boubacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax c'est toujours un plaisir en tout cas de recevoir ci euh, euh, Walf rawatina euh, ci réveil bi sans plus tarder dañuy dem si.